jeexale ko ak ponk bu mujj ci xibaar yi di revue de presse bi Mamadou Mouhamed Ndiaye moo ko taataan. jërë ngeen jëf Aminata Touré Mimi cadence mi fi doon accéléré ay cadence am ba daloon ci doo daan ca Grand Yoff débrayewaat na lonkat première jëlaat yeneen i cadence Aminata Touré ci l'observateur ubbil yéenekaay bi réeroo gi am ci diggante parti njiitu réew mi ak parti yi mu àndal mu di allié yi parti yi koy jàppal tànk yéenekaay bi nañu réeroo googee la dame de fer mu di Aminata Touré lijjanti na ko mi ngi sàkku ci gaay ñu ànd akuk dal teg ca leen xamal ne réeroo googee munta jur njariñu réewum Sénégal Benno Bokk Yaakaar Aminata Touré ne nañu ci noppalu du masa tas coow li nga xam ne am na ci géopolitique bi Macky Sall ak ñi mu àndal ñii di ko xaxar ña ca des di wane seen bopp coow loolee Aminata Touré ne waa l'Observateur merum ginaar la saful ab tusuñe maanaam ci gàttal yëfee yëngalul Macky Sall Alioune Sall mu ne ku koy tëkkale Karim Wade tooñ nga ko Alioune Sall mu ne ku koy tëkkale Karim Wade tooñ nga ko bokkuñu ci lenn te duñu benn dafa mel ni ngay méngale Angleterre ak pomme de terre observateur moom it teg ca di leeral ne waxtaan woowee nga xam ne séq nañu ko Aminata Touré du laaj ak tontu dañoo bind seeni laaj yónnee ko ndaw si bind ay tontam yónnee leen ab yónneen si noppal nay tànk waaye noppalul am xel nañu fekkante ji ci Walfadjri fekk fa ndawi socialiste yi mu di jeunesse la démocratie et le socialisme Babacar Diop i gaayam yéene kaay si yooyee lu ñu yàqul Macky Sall ku nguuram dañu koo fàtte nee nañu ci Sall ku njabootam dañoo yàpp nit ñi mu di goro yaak jabar yaak càmmiñ ya ne séddoo nañu réew mi aakimoo ko lépp ñu teg ci loxo jël Sénégal li ñu santale ko Njaay la ca ñu santale ko Faye maître Omar Youm mi porte-parole gouvernement bi doo nit ministre gouvernance locale ni ñu ci réew mi quotidien moom gisul loole gisul na njabootuk président ñoo ngi ci gouvernement bi monsieur le ministre jëlal la kenn nga fokk bokk ci njabootuk Macky Sall gi ba noppi bokk ci gouvernement bi mu di Mansour Faye magi Macky Sall Mansour Faye gorop Macky Sall le témoigné nañu moom Mansour Faye ministre hydraulique ak assainissement ak kii di Amadou Ba mi amee économie ak plan ñi la ñaar journal bi la ñu na leen askanu Matam ak bu Kanel teeru te xam ne fa la ñu jëm suba lu ñu mën a wax nag ne moo leen fa yóbbu lu dul dañuy dem suuli ji la fa yidir sa sekk sulli bu yàggul waxuñu li am réew mi quotidien nañu li am ba des moo di Macky Sall ku koy xelal Macky Sall ku ko jege Macky Sall kuy mbokkam na ko ne bu xeebee Idrissa Seck dana mere ku ko deful dara Idrissa Seck yéeneem ak bëgg-bëggam ak ci li muy dox saa yu moo di nu mu doonee direct info ne waxati ko ndaamal kajoor di Idrissa Seck mi ngi ci tànki Macky Sall firnde mooy wër na réew mi ba ñëw toog te fu mu fi dem toog fa dana fa wax lu ko nit ñi di nawee libération mel na ko ñu mu tane ko Omar Sarr Omar Sarr mi coordonnateur Parti démocratique Sénégal journal bi nañu muy Omar Sarr di yeneen i député yu nekk ci réew mi seen moromi député ñoo leen invité woon ca Johannesburg ga ca Afrique du Sud waaye Omar Sarr génnul ki bagaasam noonee la delluwaatee këram ma dellu Touba ci màggalu Kazu Rajab gi woon keroog gaaw journal yi xëy ci dellu si ba dellu si wàlle ci cérémonie officielle bi woon démb Le Soleil nañu màggalu Kazu Rajab gi ñuy fàttaliko bi Cheikh Mohamed Fadal Mbàkke gane àdduna màggal nañu ko keroog gaaw waaye ca màggal ga ca ngay xamee ne Serigne Fallou Mbàkke mi ngi ba léegi ci xol yi doom ja di Serigne Abdou Fatah Mbàkke Falilou mi jiite comité organisation bu màggalu Kazu Rajab doon it ki amee kàdduk njabootuk waa kër Serigne Fallou Le Soleil nañu ci cérémonie officielle ba kàddu yëmu yëkkati jottalil ko xalifa ba di Serigne Abo Mbacke Fallilou bokk na ci ay ñaan ngir nawet bu nangu ci réew mi ak wane seenuk ànd ci soldaar yi Sénégal yi ñu bëgg a yóbbu ca mag libération nañu Serigne Abdou Fatah Mbacke Fallilou wax na ci mbirum Serigne Assane Mbacke li mu ci wax moo di am na yaakaar ci ne jàmm ci mujj observateur nañu cérémonie officielle lu màggalu Kazu Rajab gi woon démb gouvernement Sénégal délégation juróom benn ministre la ñu fa yónnee ci njiital Aly Ngouille Ndiaye populaire mel na ku naan ko tuddee ko Ndiaye toj toj moom Aly Ngouille Ndiaye ne moo fa def tojaanga wu rëy ci bi mu jëlee kàddu gi bëggoon a leeral diggante président Macky Sall waa Touba dane 2012 bi ñu doon waajal présidentielle yi yeneen candidat yi nekk Ndakaaru di manifester Macky Sall dafa soloon aw dàllam ñëw Touba seet si Serigne Bara Mbacké mi nekkoon xalifa sàkk ci ba mu waxee tojaa nga woowee ñane woon ci cérémonie ba ñëpp a doon xoolante ñu xooli ñeent ñi ci xët mu njëkku direct info Bougane Gueye Dany njiital des médias Tange Tandian newoon ca des médias Ahmed Aydara nekk ca des ak El Hadji Dame ñu naan ko tubaab ku xam lool Ahmed Aydara te yàgg ak moom doon it chef de cabinet maire bu Sam Notaire waa di Dame Diop wax na waa direct info loo xam ne ku ko dégg génn ci Ahmed Aydara li mu njëkke moo di dégg na ñu naan mooy ki enregistré Ahmed Aydara waa ji ne loolee dara di jëw ak a lekk ñoom Marème Faye ak ñoom Macky Sall ak Alioune Sall ñoom Alaaji Malick Gakou loole man fekk mu fi woon sax Ahmed Aidara ata ngi du wax ma wax ndax neexootuñu mi ngi toog ci rajo bi naan mooy ki ma wutal liggéey sama yaay daa ñëwoon di sàkku ci moom ngir mu wutal ma liggéey daam Jóob ne day fen dara ci amul sama yaay xamul ay dara ci aadama amu ko ci awa ni mu def Malick Gakou ak li mu ko waxal tubaab ne Ahmed Aïdara du gor fayul naar bi xoromam ndax man mi di wax ak yéen jarbaatu Malick Gakou laa te li ko Malick Gakou defal defalu sax xaaj bi weer wu yàlla sàkk Malick Gakou ñeen fukki junni la ko doon jox ngir mu ciy fay luwaasam man seede ci xam naa numéro compte Ahmed Aïdara te dara taxul ma xam ko lu dul Ahmed Aïdara émission yi muy def ak revue de presse yi muy def da koy jaay la yónni ci moom madame dajalal ko xaalisam bi dugal ko ca compte am lii tax ma xam numéro compte am kilifaam moom Ahmed Aïdara di Bougane Gueye yi direct info nañu naa fekk dëgg la nekk rek mi ngi toog ci rajo bi di jéem a ak justifier jëw yi nga xam ne Ahmed Aïdara jëw na ko nit ñi ba ñu jàpp ko yéen a kaay bi nañu ba muy def loolee moom Bougane Gueye Dany xanaa dafa fàtte woon juróom-ñaari fan ci weeru janvier atum 2013 8 heures ci émission tës ba ñu tegee Tange Tandian muy waxtaan ak jabori Pape Diouf xanaa dafa fàtte fukki fan ak ñeent ci weeru février ba ñu ko fi defaatee Tange Tandian xanaa booba ba léegi kenn nawlootul journaliste yi ci réew mi bët bu rusul toj journal bi nañu buggaan géey daani na bale buntu këram bu ca paree soog di xool mbedd mi munoo yor sa paanu yamb jañax ko ci sag ron lal ba noppi di lijjanti koppi yambu jàmbur yi jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye mbokk yéen